Euh, bonjour, euh, je m'appelle Tade Adjoumasek, euh, chargé de programme à l'ONG Natural Justice. Alors, un atelier de restitution des résultats de l'étude technique des impacts cumulatifs des projets industriels à Barnier, ou en tant que partenaire peut-être donc des structures qui œuvrent dans la préservation donc, de l'environnement. quels résultats sont sortis véritablement donc, de cet atelier ou de cette étude alors, il faudra d'abord euh, inscrire euh, l'étude dans son contexte et ce contexte, il est marqué euh, par une situation, je dirais, inédite. C'est celle qui est relative au fait que actuellement Barnier est envahi de toutes parts par des projets d'envergure, en tout cas des projets d'envergure, mais des projets industriels avec en tout cas une forte empreinte écologique. À cela s'ajoutent des phénomènes climatiques tels que l'érosion côtière qui compriment l'espace de vie des communautés de Barnier. Et c'est dans ce contexte que, euh, sur demande des communautés et avec l'accompagnement de partenaires tels que Natural Justice, tels que Enrich Bull, une étude sur les impacts euh, cumulatifs des divers projets industriels présents dans la zone a été commanditée. L'objectif de cette étude est de voir euh, dans quelle mesure, quelle serait l'importance des impacts une fois que tous les projets industriels actuellement en cours sont, mis en œuvre. Les effets qui en sont, en tout cas les résultats sont, plus ou moins alarmants parce qu'on s'est rendu compte qu'avant même euh, le démarrage de certains projets, le taux de pollution à Barnier est extrêmement élevé. Certaines particules, en tout cas certains polluants dépassent de, en tout cas plus de 400 fois ou un peu moins les, les, normes sénégalaises en matière de, de, rejet atmosphérique, en matière de rejet des eaux usées. Et cela est exacerbé par la présence de la Sokosim, qui aussi de son côté, en tout cas, dont les émissions envahissent aussi euh, la communauté de Bagne. Au-delà de cette, de cette forte pollution, il y a aussi l'usage du foncier, le foncier qui est extrêmement sollicité et qui place les, les, les communautés dans une situation de, vulnérabilité foncière et qui euh, véritablement rend leur vécu assez difficile. Au-delà de cela, il y a des impacts socio-économiques assez importants, euh, dont l'activité hein, de, de, plus de 1000 femmes qui, est, qui, qui, sera certaine, qui est déjà impactée par les activités en cours, mais qui sera encore plus impactée par les projets à venir. Donc c'est ce, en tout cas, cocktail explosif auquel nous assistons, qui est plus ou moins alarmant et qui fait aujourd'hui l'objet de discussions avec les communautés. Va-t-on vers un Barnier qui va disparaître, comme le craignent beaucoup, ou alors faire une adaptation alors, euh, tout dépend en tout cas de l'approche ou des solutions qui seront proposées par, par, les autorités et de leur niveau de sensibilisation par rapport à la problématique. Ce qui est clair, c'est que Barnier est aujourd'hui encerclé. Vous avez d'une part tous les projets industriels, que ce soit l'usine de sidérurgie, que ce soit la centrale à charbon, que ce soit euh, la, cimenterie, euh, la cimenterie ou bien le port minéralier évacué Et de l'autre côté, vous avez la mer qui avance. Donc c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur la communauté. Maintenant, les, des solutions existent. Maintenant, la question qui se pose est de savoir est-ce que les autorités seront assez attentives et ouvrir des canaux de discussion avec les populations pour trouver, les solutions ou bien mettre en œuvre les solutions qui s'imposent. Comme palliatif aujourd'hui, est-ce qu'il y a une urgence de trouver des solutions à court terme il y a véritablement urgence à trouver des solutions à court terme parce que nous avons tous constaté que, en tout cas, euh, il y a une récurrence de certaines maladies qui sont certainement liées à un environnement plus ou moins pollué. Donc, euh, le, vécu quotidien des communautés de Barnier est déjà très difficile et les communautés sont aussi ouvertes à, la discussion. Maintenant, il faudrait que peut-être les autorités exécutives prêtent une oreille, attentive à leurs revendications et leur permettent d'avoir un cadre de discussion. Je suis Samba, présidente des femmes transformatrices pour le site de Compagnie, membre fondateur du RAPEN, réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, en même temps conseiller municipal. alors lër bu ñu toll jëm ci euh, fexe ba la nga xam ne moo tukkee ci ak jàngat gu ñu doon def ci loru kéw gi ñu ko ci ñi <laughs> euh, lan mooy sabab bi ak itam njëriñ bi nga xam ne moom la war a am ci askan bi nga xam ne moom ngeen ci woo. waa jàngat bi jógee si euh, loru kéw mi nga xamante ne moo nekk si ñi dafa bari ñi dafa nekk si euh, contexte bu nga xamante ne il faut que nit ñi yëglu nit ñi yëglu aussi nit ñi jaa def jàngat ndax euh, lii wër bari ñi moo xaw a doy waar ndax euh, dañu seetlu ne ay projet yu nga xamante ne yëpp ay projet polluant la maanaam lu nga xamante ne dafay dégrader environnement dañu xëy indi ko si biir bari ñi te yàlla dafa def ñun en tant que femme transformatrice ñu nekk fa di liggéey aussi wàllu environnement ku nekk xam ne ni avec projet yooyu du yomb it bo de deuk ku deuk ci bir deuk bi it xamne bus bu central uh, bi takke projet tosay li tak le port minéral yi commencé di liguey ak la sokosi nga xamanteni bi jujur yo ñun fa lañ ko fekk ak le le le port uh, le pôle di de Diamniadio am na nekk na ay ay ay ay euh, yu bëri yi nga xamante ne lépp dafa war a tegu si kaw bariñ donc dafa jaadu ñi nga xamante ne ñoom seen liggéey mbaa seen xel dafa màcc si loolu ak euh, commune euh, nu mu tudd association yi fi nekk di dox si wàllu environnement dem seeti ku leen si ëppam pexe mu defal leen jàngat saytul leen ba nga xamante ne fii ñu toll nii tembe te lii si métti mooy ak projet yooyu yëpp boo xoolee centrale bi moo fi dawagul te bii ñu seetloo ne moom rek moo fi daw lii ñu natt ne

li xew ak lan moo nar a xew te loolu nar a xew du doon jàmm si ñi donc moo waral tey ñu def euh, atelier bi ñu taxawal tey. ñu bëri njort ne fi mu nekk nii Bargny boo moytuwul daf fiy jóge ba faw wala fi mu nekk nii dañoo war a dëkk ak métit wi waaye seetaat dëkkin wi. waaw Bargny de buñ si jëlul ay mesures. day dafay dem ba faw parce que bu fekkonte ne ñi nga xamante ne ñoo war a wax ak askan bi du ñu leen wax lu leer lu nga xamante ne man nañ si jàpp si tukkandiku si mbaa buñ doxal yoon mbaa def yoon man na am fu ñu mën a toogee kenn toogee nii mais nag lii ñu seetlu mooy depuis que projet bi taxaw ba léegi amul dara lu leer lu nga xamante ne teg nañ ko si loxo nit ñi ndax lu may genre naxante la rek bërëb bu keex mbaam yow yaa fi nekk dinaa fexe nu ma naxe ba ba teg li ma teg mais loolu mën la nekk bar ñi war a mën a dëkk ak moom parce que bu fekkente ne ab dëkk yaa ngi fekk nit ñu nekkoon si seen jàmm ku ne xam ne na Bargny ab dëkk bu neex la bu neexoon bu neex mais bu ñu toogee tey ba wàllu environnement boo nee Bargny ku nekk tiit nga ne wàllu transformation muy levée économique bi nga xamante ni képp koy dund si Bargny ndax boo ne la transformation des produits halieutiques da ngay boole waale la pêche te loolu xam nañ ne lii mu englobé si biir Bargny mënuñu kaa boole ak leneen lu nga xamante ne bien vrai que nag ñoom de boo waxee dañ ñaan dañ soxla euh, électricité il faut ñu def nangam dañ soxla ay usine euh, Sénégal dafa war a développé mais boo war a développé li may laaj toujours lan mooy njegam ndax dangay jël communauté boobu fexe leen maasaale leen am da ngay fexe ba communauté boobu nga xool jël leen en compte déglu seen i doléance xool ba xam nan ngay waxante ak nan ngay defante ñoom ba lii nga bëgg taxawal ndegem mën na ne te ñun si li ñu saytoogu mooy mënu la ne ndax gisaguñu dara loo xam ne def nañ ko muy ah, lu lu lu jaar yoon lu mën a tax nit ñi seenam xel mën a dal mën nañoo dëkkandoo ak ak ay projet yu mel noonu lan mooy gën a jàmp ci loo xam ne daal dana doon luy andi saafara bu ñu seetloo ne napp gi mu ngi loru dëkkuwaay bi di loru kewu gi di loru ak koom gi. mais ñu xool lan moo mën a ne. parce que tamit ba loo mën a wax rek ñoom du ne bari ñi rek moo fi nekk option pour mu indi projet yooyu. bu bari ñi di yuuxu ne jël nañu seen ay suuf bari ñi di yuuxu ne seen wàllu santé tiit nañ si lool bu bari ñi di yuuxu ne seen wàllu développement économie locale jaa euh, am nañ si tiitaange lan moo war jarul lan moo warul état war a ñëw toog nag taxaw ak nit ñi carte sur ñu xool lan la ñu war a def nan lañu war a def ñan la ñu war a toogal ak ñan la ñu war a taxawal waxtaan moo jaadu mais en général ñoom dañu seen i def la def seen bureau ba pare soog a ñëw waxtaan ak population boo waxee ñu ne romb na ba pare mais nag le cas de Bargny c'est un cas d'école lépp lu nga xamante ne jàngat nañ ko si dund nañ si incha allah taxawaay bi day gën a dëgër rek si ne nit boo ko euh, boo ko ilifee doone rek da ngay yor sa bant di door mais da nga koy boole sa la ngay xam ne moom ngay taxawal bu ëllëgee moom mu xam ne moo waxoon lii moo fekke woon lii ah ñu mën a dem si kanam